عليكم من كل قاف ظلمون ñi mbokki taalibe yi ci ndigalu cheikh Mouhamadul Amin cheikh Ibrahim Niass représentant xalif bi ci ndakaaru jamiyatu ansaaru din ci lëkkaloo bu Dakar ak bu Thiès ñoo ànd ak mbégte di leen yëgal ganasik xalif bi di mawlana cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass ci ñeel cheikh Mouhamadul Amin cheikh Ibrahim Niass représentant xalif bi ci ndakaaru ci kilifteefu président national jamiyatu ansaaru diin cheikh Mouhamad Mounhamin na cheikh Ibrahim Niass. ak taalibe yépp programme mu ngane gi nag nii la fas yéene tëddee bu ñu demee ba alxames yemoog le 18 novembre ji ñu nekk ci 12h bi war a agsi ci ndakaaru wàcc ci kër cheikh al islam alxaaji ibrahim Niass ci jëppal ca aljuma ja xadara bu mag bu ñuy amal ci teewaayu xalif bi ca stade municipal bu Parcelles Assainies unité 17 gannaaw xadara bi ak julli timis gi xalif bi nag daal di yëkkati ay kàddu jagleel ko taalibe yi ak soppe yëpp ca samdi ja ñu daal di amal conférence bu mag ko fas yéene waxtaanee di porte parole bu xadra bi Mawlaaye Cheikh Mouhamed El Mahi Seydi Ali Cissé ci samdi ji dimanche ji jàpp altine ja alxalif Mawlaaye Cheikh Mouhamed El Mahi Cheikh Ibrahim ñas daal di dalal lenn ci autorité yi réew mi ak ñii di muqaddam yi kon nag mbokki taalibe yeeg soppe yi bu ko kenn ute le 18 novembre yemook jeudi jàpp le 23 novembre nga ne si xalif bi Mawlaaye Cheikh Mouhamed El Mahi Cheikh Ibrahim Niass ci ndakaaru bu ko kenn uti.